waaw suñu mëbët ci dëkk ba euh, comme ni ñu koy waxee saa yu saa yu nekk euh, dëkk boobu lañu am dëkk boobu aussi fa lañ fekk baax dëkk boobu aussi la ñu falee maire foo fekk baax ñu dem ba fal la fa maire tamit dëkk ba desalatu la dara moo tax it lépp lu ñu am ci wàllu xelaat ci wàllu xam-xam ci wàllu doole dañ defee fay yàlla def na bi ñu ñëwee 2009 li ñu njëkk def mooy jàngat situation bi gis ne dëkk bi lu bari manqué woon na fa lu bari amoon na fa ci année yu yàgg yi en tout cas suñu papa yi loolu la ñu nettali ci jamono dëkk boo boo xam ne la woon dafa doxoon doxoon commerce bi dox am ay usine am ay activité am lépp am ay marché yoo xam ne vraiment mucc ayib waaye loolu yëpp dañ ko wéeroon ci gerte gi waaye ñu dem ba gerte gi nit ñi toppatoo ben investissement booy ñëw ci gerte gi ba finalement mu andi ben crise mu am crise bu amee crise loolu moo tax population bi bàyyi commencé sonn muy jafe-jafe yi commencé ñëw ci Koungheul ak li ko wër ci loolu lañ nekkee traversé ko année 70 année 80 vingt ñëw année 90 vingt dix ba yàlla def ñu nekk commune ah en 90 euh, maire yi fa njëkk a nekk tamit euh, wax dëgg góorgóorlu nañ ci li ñu mënoon. ñun suñu combat politique moo ñu andi foofu euh, d' abord dañ ko defoon sous dans le cadre de ànd jëf donc c'était au niveau national ñu dem di laaj mairie bi. 2002 essayé nañ ko avec coalition avec LD MPT Seydou ça le ko yàlla def euh, ñu gañe ñu ci ay voix yu néew ñu dem 2009 aussi ñu représenter waat yàlla def ñu gagné population jeune yëpp accompagné donc bi ñu ñëwee jàngat lañ njëkk def dara euh, ñoruñu woon politique bi sax à l'époque ñoruñu woon waaw yàlla xam ne ne euh, engagement jeunesse engagement citoyen moo ñu mos a tenir foofu ci dëkk bi ñu jàngat gis ne compétences qui nous traversé éducation la santé jusqu'à présent éducation de base santé primaire euh, jeunesse planification culture environnement euh, tout ce qui est gestion gestion urbaine éclairage public euh, addiction vois, d'eau il y a eu mu nekkoon neuf compétences yoo xam eu ñun dañ il faut que nous góorgóorlu ci ci loolu lañ nekkoon

Euh, environnement aussi euh, ba tax na aussi euh, problème yu bari réglé woon nañ ko à l'époque même ba ci assainissement bi je pense que ñun rek ñoo nekkoon benn dëkk boo xam ne réfléchir nañ def projet d'assainissement programme d'assainissement dem wuti financement financer ko après peut-être lañ mën a jël bénéficier de l'appui de de l'État mais ba 2014 2015, 2016, nous vraiment gorgol outil. Enfin, euh, l'électrification, lui aussi, euh, atteint un kilométrage barré, barré, barré, barré. Mais dès que nous yoko, parce que presque 200, 300 000 habitants yoko, qui vivent le département, nous yoko, nous ne pouvons pas maîtriser. L'unchi, Natouan, d'ailleurs, tombe sur nous, pour C'est-à-dire que finalement, comme économie rurale, nous avons des taxes qui nous supporter. supportées économie rurale d'habitude comme l'économie informelle doit am ay du am ay taxes loolu moo tax euh, mu am tey jii ay quartiers yoo xam ne matagul waaye ci nag di ñafe pour que au moins éclairage public ak addiction bi mu mat fépp forage bi aussi bon cent mètres cubes d'eau li nga mën cent mètres cubes d'eau je pense que c'est mu dara à l'époque où on était quinze mille euh, koy tabax on était presque 12 treize mille habitants ñu dem 30 000 même la journée dinañ 35 40 000 habitants évidemment comme ne wax rek bu bëccëg bi ñëppay ñëw guddi gi comme plateau là, <laughs> presque ce que ñuy loolu euh, vivre donc mu am am na déficits, déficit euh, déficit électricité mais nous ngi fait aussi pour euh, complété au fur et à mesure mais déficit moom day yokk rek parce que comme kii bi day yokk mais def nañ ay ligue d'adduction d'eau yu bari ay électrification aussi dem na fu bari ñu def suñu kéemtal ay kàttan ñu ngi am ay ay lampes yu leer def éclairage def éclairage di continuer aussi dans le deuxième euh, plan bi ñu def 2015 2021 ñu ciy continuer aussi di def euh, yenn investissement yi ci domaine transfert mais dafa fekk ne 2014 nous am aussi euh, départementalisation du conseil régional dafa jóg bàyyi conseil départemental pour mu gën a et c'est loolu mooy richesse richesse su de la décentralisation parce que région bi c'était trop belle bi mu la euh, départementalisation nous euh, le président Assane que je félicite euh, au passage ci njàmbarteem un qui détermination am engagement aussi pour développer le département de Koumba. mu ne dañuy def des PDD comme nous ko un département yi département je pense que le département yëpp def nañ PDD RDD, accompagner accompagné même dans le Sénégal département yëpp def nañ mais défi bi mooy nan la commune, yi war a département parce que ben terroir territoire commune yi mënuñ xaj jaar nii département donc motax ñun li ñu mën def yalla may ñu ñu déggo aussi ak le président du conseil départemental man tamit ma chance nek au cœur même de la formulation de la politique donc loolu daf ma jox ben vision donc sama orientation ci biir commune bi tey jii loolu moo ko mun dañuy continuer électrification continuer adduction d'eau continuer maternité yi euh, santé poste de santé puis appuyer euh, l'assainissement, il y yëpp bien que continuer mais maintenant def maintenant d'ailleurs l'accent de troisième phase sur les investissements en termes de logistique parce que depuis, bi quand même il faut lu ko wër économiquement lañ ko en charge bu yëlee yëpp demee bay waaj a mat économiquement lañ économiquement war en charge entre dès 2000 2015 2016 man maa ngi commencé discuter ak ay privé parce que xamoon naa département fan la jëm ne Koungheul moo war nekk centre logistique bi moo war a euh, dañu war def parce que bi ñu defee PDD bi dañu def Prodesc pour opérationnaliser PDD bi et Prodesc bi lan la c'est des productions agricoles yu ñuy valoriser par la transformation de stockage mais bu ñu koy transformer di stocker di ko euh, conditionner dans des chambres froides loolu Koungheul la war a nekk parce que foofu la moo nekk centre bi moo nekk euh, la zone urbaine donc ñun dañuy préparer wu en termes de magasin de stockage en termes de chaîne de froid en termes de marché hein, marché que ce soit marché virtuel ou marché présentiel en termes de garage en termes de service même hein, service informatique façon xeetu service boo gis boo dans une grande ville nous war na nous mais si nous jëlul matuwaay pour que li ñuy produire moo xam ñebbe la moo xam mboq la moo xam gerte la moo xam pomme de terre la moo xam kaani la moo xam aussi euh, ngooñ la moo xam ñax la moo xam aliment de bétail rakkal la moo xam aussi diwlin la luñ koy def ñu def ko buñ ko defee ci zone rural bi ñu mun ko andi Koungheul commercialiser ko mais boo koy commercialiser boo bëggee dëgg njëg li am solo mun a jëriñ ki ko bay wala mun a jëriñ ki ko produire en Idda Mouride ou bien en Pakala wala wala en Gent Pathé il faut nga jaay ko ci moment bi nga xamné ci le prix bi gëna a yokk te loolu ñun buñ ko mëne def il faut ñu defar cost conditionnement yi ak Koungheul moy chaîne lolu moy expliquer chaîne de froid ñu ngi discuter ak ak ak ay professeur ah professeur bay defal nañu offre ñu ngi discuter ak ay euh truc pour faire des magasins privés baa ngi foofu ay Alaaji Moussa Seck ay Madiama Seck ñooñu ñu ngi leen di utal ay espace pour que ñu tabax ay magasins yo xamné nous na ay privé yoo xam ne ay sekk ndimbalaan ak le défunt Aliou Top yàlla na ko yàlla yërëm ñëpp ñu ngi doon góorgóorlu et ngi góorgóorlu jusqu'à présent pour créer investissement yooyu au-delà commune bi nag lu mën accompagner avec le ministère def par exemple le ministère du commerce am nañ une plateforme euh, régionale de commercialisation des produits agricoles ñu ngi koy mettre en place par na presque euh, avec le ministère de la pêche nous ngi créer benn chambre forte pour euh, stocker stocker tout le poisson pour le département et la zone de euh, de je pense que l'eau aussi ça participe nous na ñun un marché euh, un deuxième marché selon le marché y a pexe marché pour beaucoup fonctionnement bi modeste Une unité de transformation aussi il y dans le PRODES ñu le a les financements sont presque acquis donc, cet aspect de ville logistique, ville relais, ville sous-régionale, connectée au reste du Sénégal et à l'extérieur, loolu lañ soxla même dans le plan sur le plan informatique loolu moo réfère ma la bu baax visitu Yankhoba Diattara bi ak du ministre Ablaye Sow ministre Ablaye Yankhoba qui sont venus qui ont ñoom seen investissement yi ak action yépp ñuy def finalement bi ñu ko demee ba identifier ko dañ ko capter ranger ko dans le cadre du Prodesc comme man euh, dama jàpp ne euh, Koungheul euh, ma nekk maire mu bañ a nekk maire bu tant que yàlla moo may sama bakkan dinaa ci du ma jóg di ci dugal sama loxo donc bi ma ciy def ci wàllu xalaat ci wàllu ndimbal ci wàllu jàppalante sama wàllu doole jiitu na sama nekkin maire te yaakaar naa ñaan naa yàlla tamit mu romb sama euh, position bi nga xam ne euh, nekk maire euh, kii nekk maire nag ñun aussi dañu nekk ci parti am njiit nekk benn benn bokk coalition benn bokk yaakaar président de la république di suñu di suñu njiit kon aussi su ma tëbee rek ne candidat la damay jëm a trahir sama parti il faut que ñu waxtaanee ko. ba ñu xam ne fii laa war a mën a nekk te fii laa war a gën a mën a jëriñ su ma ci amee xalaat nag boobaa mën naa ko joxe ci groupe ba du bokk ak bi may ñëw 2009 nga xam ne d'ailleurs man ma su mosuma demandé 2009 euh, coalition bi ma tudd ñoo ma jiitaloon nee ma kaay euh, nekk maire euh, d'ailleurs bi ma ñëwee ma koy sant yàlla bu baax di ko sant aussi waa Koungheul sant waa Koungheul bu baax. bi ma ñëwee euh, ca euh, bi ñu élire bi ñu paree élection yi bay élire maire ba tamit j'ai été plébiscité en 2009 loolu même plébiscite boobu moo ñëwoon aussi en 2014 maa ngi koy sant yàlla bu baax nag di ci gërëm bu baax waa Koungheul di ci gërëm aussi euh, le président de la république loolu yëpp li ko andi mooy man dama jàpp ne mënoo tëb naan man la man la man la mel ni aussi ñeneen ñi aussi ñoom waru nekk kon yaayaa je pense que buñ ci tollee ci. weer yu néew incha allahu rabbi buñ ci waxtaanee ba xam ku ci nekk ci fan nga war a gën a mën a dimbalee le chef de l'état ci fan nga war a gën a mën a dimbalee sa gox ci fan nga war nga mën a jëriñee aussi département bi wala commune bi ku ci nekk dañ la wax euh, rôle bi ngay mën a jouer ak euh, fan nga war a mën a nekk fan lañ la war a mën a nekk